وسلم سل على عبد الإله بي ذكر الى كبي سيف الى وآلي وسلم سل على عز الى نعمتي باب الى سراتي هدى الى وسابي وسلم سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا سفينا وآله وسلم سل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول والنبي وسابي وسلم صل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد الأنيم وآله وسلم صل على إزرار وذاك كاتب القرب وذاك نافع الرتب وسبي وسلم صل على ما الوكيل والمتوكل الكفيل لنا إلى سبيل وعلي وسلم صل على بار البؤر سنيدا سافي سدور نافي سقى بدر البدور وسابي وسلمي والذي قاد الندى لمن يجي للاهتداء ومناه باهتداء لا قردا بالوسم هو الذي امتدد يدي به لرب أبيدي وجاد بالجيد من قريعة وسمين لو من القوارق ما لم يجد ولا يفي للعيق فضلا من الم... مقدم منها سلام العجل عليمة تجري لو انتقاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزل القمام يرى وراء أمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم من تجنب الزباب عن جسمه ما فياب كذاك تثير ثياب بالعيون المغنم من توسل الطيور به لو سكى وانفجر الماء النميت من يد ذي التكرم سمي تسمي التام فيك في عبد الانام كتاب زبين بكلام معجزة محترم كلام مدب فأتى أتى بنت ثبتا هن نجس قد أتى في موجدات المكرم لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن لسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج منهاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى عمر وفي الفن سرين نور ميتان أيد الله ونصر بكري تيري رجع خسيد وان لاين دول سنين ينان يون تسين إنسان بين باخو أند يين من منحاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريب نصفا عم بيسام نلين كدخل نجماس بنك في دارن دي تدئه أو أنهم الدين mu sant leen ndokkal leen ñaanal leen sàkku ci ñaan mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam waxtaan woowu moom la ñu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam nga xam ngeen dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla mën nañ ci ñoom texe ëllëg mën ci ñoom yërmande mën ci ñoom mucc ñooñu alxuraan daf leen di déranger mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla waaye tëriwul alxuraan daf leen di déranger am ñoo xam ne nag alxuraan mooy seen ndajj xol moom la ñuy dëgg moom la ñuy moom la ñuy jàngale moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg wax bii duma wax alxuraan daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridu llahu an yadiyahu yasra sadruhu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadruhu dayixan arajan كأنما يسح... كأنما كأنما يسحب في في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام مفتي الدنيا سنبرم بهني من يالله من نمي أو جام ومن يريد الله أن يأبيه يسر سبيل الإسلام من يالله من نمي أو جام متخي دج دج تهي لما يسألني تخلم لرب الإسلام sànni ci xolam leeru alquran sànni ci xolam gëm yàlla gëm alquran nangul yàlla nangul alquran waaye nag waman yurid an yudila lahu an wani waman yurid an yudilahu yajal sadrahu daifan arajan bu fekkee ni damaa namm ci moom muy ku nar a texee bi ku nar a dugg ci musiba ku nar a alku damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudilahu yajal sadru dayifan dayixan arajan bu ma nammee mu texeedi wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanub àjjana damay fexe ba xolam bu bëgg alquran xol bi day xat mu ni ka annama fi sama day mel xam ni dafa bëgg a dem ci mu bëgg a naaw ولا يبغى دم تبديه ولا شو يعريا من دون هذا أصلا أنت جد كسم خم أم تبدي أكسجين بمن ماي من دم بدي كم نحن بدي من بيان دخل جد بالو الأير بمن ماي تفوها أير بمن ماي أمه من خالد دم جد جد كم نوع بنا خم بيوت أم بمن ماي بخخ بنا ردة سبحان من خم من من تيوم كه بوجد القرآن من لسان خالد يوم مخير noonu la seen xol yi di ni ci mën a it an yuddilaku yetallahu sadruhu day xam arajan bu fekkente ni rek yàlla dogal na mënuñoo texe faw suñu doon ci suñu xol bu ñu déggee alquran wala ñu déggee ni alquran seen dënn yi day bax ma ko defee man yàlla mu ni maa ko def ci xol mi nga xam ni gëmuñu te duñ gëm mën nañoo woote woo gëm rek waaye du mukk mukk mukk ngëm gi tax ñuy wax ngëm googu mooy bu alquran ne nii la nga ni waawow masalan bu alquran bu ne daa weex nga ni tàll bu ne daa xonq nga ni cóoloo loolu mooy nangu alquran al karim mooy nga nangu a jàng ko jàngale ni ahlul quran ngi ko amee depuis suñu maam yi ba léegi daan taalum ngañ ba yàgg ñu évolué di ba mujj ñuy taal Coran daan yor ay alluwa daan ko bind ci ay mat wala ay xarit mat wala ab der léegi ñu dem ba mën am ay alluwa dem ba ay këyit évolution boobu ne nga xam ne ñun alquran yàlla ci boppam moo ko andil doonte jaaral na ko ci yeneen loxo waaye lépp kat ci réewul ñi xam ni ñoom jàpp nañ ni ba léegi alquran dafa tardé ñun waa alquran dañoo tardé beneen bi saa bëriñ alquran nee na ñu la waaye nag te waaye nag jooju wuru faa am alquran moom samihna wa ataxnaa rek la war a doon mooy dégg naa danaa topp moom la nitub alquran war a melawoo nitub alquran nee nii la ñu ne ah kay la suñu borom a bis ba jàll daa wax ñi nga xam ni dañuy diingat alquran karim mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xul waxal ma te yàlla mi koy wax loo moo ko gën a mën a wax mu ne ko xul lay na tamaatil ins wal jinn ala an yaatu bi misli hasa al quran la yaatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin sahira yow muhammad waxal ma neel jàmm nii leen ñun ñëpp bu ñu dajale woon seen doole seen kàttan def coalition ngir bëgg a indi lu mel ni wenn fepp arafu alquran duñ ko mën ba bañuy dee donte boole ci mbay yëpp boole seen kàttan yëpp boole seen i pexe yëpp boole seen coalition a indi wenn araf bu mel ba bañuy dee duñ ko mën mukk mukk yow Muhammad waxal ma loolu jàmm moom daa jàmm ne mu ko xanaa nit ak jinn ñi nga xam ne dama leen a bind ngir ñu jaamu oma xalaxtul jinna waxal ma leen ñoom ñaar nii leen mooy nit ak jinn buñ daje ngir bëgg indi lu mel ni alquran ba bañuy dee duñ ko mën dama aadama dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu réew ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ca arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga jël ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ def alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waaye nag constitution la boo xam ne nii amul ñuy daje ensemble naan loi sàngam dafa xewi nañ ko jéem a wote ngir adressé ko wala naan loi sàngam war nañ ko indi ndax nekku ci yoon déedéet maa farat naa fil kitaab min shay suñu borom nee na loi yëpp yëpp ngi ci biir dara dara dara mankiwu ci moo tax suñu borom ni wala qad sarafna linnaas fi asal quran min kulli masalin man yàlla ñëpp misaal mu ne misaal doomu aadama ngir mu mën a xam lépp lépp wu ñuy lépp doomu aadama ngir mu mën a xam bépp junj bu ñuy junj doomu aadama ngir mu mën a xam man yàlla junj naa ko doomu aadama ci alquran waaye fa aba fa aba aksaru naas ila kafuran suñu borom ma nga ca sóoru isra suñu borom waaye nag ñun nit li ci ñoom dañoo lank ba tëdd ca naaj dañoo lank ba ñu ñu diglu mukk li leen yàlla di misaal yàlla misaal nañu ba misaal ñu ci aw yoo yàlla misaal ñu ba misaal ñu ci gëléem ak ñu ko bindee afalaa yansuruuna ilal ibili kayfa xuliqa misaal mu nekk yàlla misaal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téeréem bi ngir bëgg ñu gëm ko moom yàlla waaye tëréwul nee na doomu aadama daal di dajjarle taxaw lànk ni man bu yàlla wax du ma ko bind mukk du ma ko gëm mukk da cay seet la ko arrangé rek mu nangu ko la ko wul mu daal di koy teg fële loolu nag wërta demee noonu ni ñu xam ni alquran ak jullit farata ci moom mu jàng ko dinañ ko wax ci kanam insha allahu rabbi min alquran moomu nag xam ngeen ni bu yàlla na mu ñëw ci kaw suuf jaaree na ko ci ñett jaaruwaay moo tax ñu ne alquran dafa wàcc ci ñetti xeeti wàccin wàccin yu jëkk woon mooy dafa jóge umul kitaab dal di law ul mahfuus ngeen baal ma de nga xaw ci tuuti dafa jóge umul kitaab ñëw law ul mahfuus jóge law law ul mahfuus ba ñëw ba ci xisab mu asamaan jëkk si mooy wàccum ñaareelam wàccum ñetteel bi mooy bu mu jógee bay ci xissa dal di ñëw ci gën Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñetti xeeti wàccum yooyu la alquran wàcc alquran bi muy doog a wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ni doon nga daara boo koy jàngal mu bañ a fàtte liñ koy jàngal day répété day gaawantu loo wax rek mu gaaw wax ko loo gaaw mu wax sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon bi jibril di wàcc alquran ci moom ngir a bi wax rek mu wax ko gaaw di répété rek suñu borom laa tuxarit bihi lisaanaka li taajale bihi inna alayna jamahu wa qur'aanahu déedéet bul defati rek lu jibril wax nga répété gaaw dalal rek man ñu wàcc alquran ci yow maa koy dajale ci sa bi ba wenn araf bu ci manqué wenn wenn wenn wenn inna alaynaa jam'ahu wa qur'aanahu ñun ñooy wàcc alquran ci yow te ñoo koy dajale ci sa dënn bi ñun nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu Jibril masaan di wàcc alquran ci moom muy daawat mokkal ko lu ko waral mooy bañ a fàtte doon na daara bi moom tamit noonu mu nga xam ne bu tolloo ci di beqi wala mu tolloo ci di tàmbalee sori nga xam ne fer ijji boo gisee bi ñuy jàngal dong bi méthode bi nga xam ni moom la sëriñ daara yi amee mooy tàmbalee dong bi naas yi dal di jëm baqara lu ko waral mooy bu ñuy doog a tàmbali di jàng saaru gàtt yi saaru gàtt ci moom bu ko du yokkat mukk du yokkat mukk muy gën di yëg saar yi di di yokk dànk ndànk muy gën di yëg ba nga xam ne alquran commencé na tàmbali di taa ci xol bi ànd ak mu mën koo récupérer jamono boobu nag muy gën di wéy di gën di wéy ba ba muy àgg ci saar yu guddi yi di jël bind ba ba muy jeexal baqara loolu rek la ci waaye comme neexoon tey booy jàngale nga tàmbalee baqara jëm naa si ñi nga xam ne boo doon bi baqara ngay tàmbalee jëm naa si waaye lu ko waral pour bëgg xale bi teel a téere bi ak bañ a gaaw a moo tax ñu di ko tàmbalee ci saar yu gàtt yi léegi nag bi nga xamee ni dem na ba wàcc mu war a beq nag léegi nga bëgg koy sëfandoo juróomi isib ngir bu ëllëgee mu mën a taxaw di tari alquran te di ko xool ni ñu koy defee ci bu ñuy naafil di ko daga tegandoo euh, par juróom isib par fukki isib par ñeenti isib par isib ila axiri ila axirihi xale bi moom tamit foofu li daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii da koy daal di dal mooy day daal di mbir mi day diis ci moom diisaay boo xam ni ndax sallallahu alayhi wa sallam ci moom te diis benn diisaay bi suñu borom ni ko saaxa ma anzalna alayka alquran li tasqa ila taskiratan liman yaxsha ngir mu gis ne waaye wàcciwuma ko ci yow ngir fitnaal la wala ngir sonal la déedéet dama koo wàcce ci yow ngir mu nekk waaraate boo xam ne nii dina ci mën di waare ak ay yeete ëllëg kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ni ko léegi mooy bu jibril da ngay déglu jibril bu jàngee ba noppi nga doog a jàng topp ci moo tax mu ne ko fa isa xarahnaahu fa tabbih qur'anahu bu jibril jàngatee ba noppi nag léegi nga répété moo tax sallallahu alayhi wa ko laajee wax yu bi nim daan dikk ci yaw mu ne ah wax yu bi day am na boo xam ne moom dafa diis gan gan gan gan te xoola bi naan dafa diis kat sallallahu alayhi wa sallam bu alxuraan masaan di wàcc bu fekkee mu war gëleemam gi ñuy tuddee xasuwaa mooy gëleem gi weex daan war gëleem gi day gaaw gis wala lu loolu rek tànk yi day dam ndax diisaayu alquran sallallahu alayhi wa sallam bu miinagul wàccu alquran bu alquran masaan di wàcc day gaaw sóonu day gaaw sóonu ndax booba miinagul diisaayu wàcca wàcc wàccu alquran ba duñ ko miinee nga xam ne léegi buy dox alquran di wàcc ci moom te du ko dafa ndax usaagina radiallahu taala anha bu alquran mas ànd wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam luñ sedd sedd sedd da ngay gis mu ñaq bay siit ndax diisaayu alquran moo tax duñ ko laajee ni kii ci lan alquran nan la daan wàcc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wàcc lay wàcc ci man benn bi bu Jibril ñëwee ba ay melaw doomu aadama ma gis ko nii muy wax muy dégg bu noppee ma daal di wax li waxoon beneen bi ci des nag day ñëw rek mel ni benn biolooni buñ tolloole di ko fëgg day day ruy mu nekk te rek nga daal di xam li mu wax moo tax nag donga daara yi toujours dañuy wax sëriñ daara yi ni donga bi waroo ñëw rek boo nee baa mu ni baa boo ni si mu ni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ni alif lam mim salikal kitab déedéet dañoo bëgg yow sëriñ daara bi nga wax ba daaneel donga bi di la nga ba daaneel donga bi di la déglu nga waxaat ba daaneel daan ñu ko waxal moo leen mu wax su ko defee bu juumee nga daal di gàgganti dellu ko waxaat jaaraat sa ñu ko waxal mu waxaat ba ñu ko mëne su ko xasee mëne noonu rek soo ko ne demal jàngi ko rek su ko jàngee yàlla mën naa def mu mokkal ko insha allahu rabbi alquran nag sallallahu alayhi wa sallam ñu xamni ñoy intellectuel alquran yi fépp fu ñu daje ñoo ñu nekk njib mal asaf suñ réew yi suñ réew yi mom ñu ndax intellectuel moy moy ku jàng tubab ku jàng tubab ñu leen jàpp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañu dani ahabukum axabukum aksarukum qur'aanan bu ngeen dajee ki gën a nekk intellectuel ci alquran na jiite lu fa mën xew na ko jiite ñu ko ci dam ki gën a nekk intellectuel ci alquran na jiite alquran wàcc bàyyi ko ci borom bi jógee ni ma ko waxee ummul kitaab ñëw lawul mahfuus jóge lawul mahfuus ñëw béy ci xisa mooy asamaan si si yu fa doog a ñëw ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom وإنه لتنزيل من رب العالمين القرآن نيجن دي وح ديكو نغوت نغوت هنا نجن نان ليس من كلام لا أهكي أهكي تيالا لبايكو موكا واتي تقول بنتي على محمد من أخاني موي برم بندي في متخمر نسل بي رؤو الأمين نسل بي رؤو الأمين على خلبك لم تتك لتكونوا من المنسرين ñun yàlla ñoo wàcc alquran jox ko sunu ruux te mooy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alayhi wasallam ko soxal mu ne tax nag mooy dama bëgg mu nekk loo xam ni bi nga ci man a yee nit ñi waar leen ci mun waaye nag woyefal naa ko ndax bi lisaanin xarabiyin mubiin dama ko wàcc langu arab ndax booba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñu ko yàlla yónni jamono booba ay arab lañu su borom wàcce ci lang woowu jë alquran langue arab waaye axam ngeen ne alquran moom du arab alquran buñ la ko dee misaal mënu wax sax ni arafi alquran yi nii ñu ko gisee ci téere bi noonu la mel ci lawul mahfuus déedéet déedéet masalan wàññi ma ko alquran bi am kaan bu fekkonte ne tey opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bàqar bi na jinne te wanaas mu ngi ci biir yuur gi waaye tey bu fekkoonte ni xotti nga yiw gi doo gis wenn araf doo gis baa doo gis siin doo gis miim doo gis laam doo gis dara doo gis kaaxaa yaaxa saat te kat soo ko nee taril mu aadama tari te doo gis wenn araf alquran noonu mu nekk ci yuuru doomu aadama bi nga xam ne nii nekkul ay yooyu lam ko daj noonu la nekk ci law ul mahfuz nga xam ne léegi suñu borom rabbi si wa jàlla bi mu ko wàcce mu wàcce ko ci langu arab mi nga xamee ni yow boo bëggee waxee bàyyi moo xam xar mi la moo xam fas wi la mi nga wàcc sa niwa ba nga xam ne da ngay tolloo xar mi nga xam ne doo fi nekk naan xar mi kaay ndax xar mi du ñëw ana da nga ko naan bar bar bar bar ndax wàcc ba tolloog niwa xar mi naka noonu bu dee fas yi boo ko ne kaay du ñëw da nga ko naan kor kor kor kor mu soog a ñëw suñu borom it xam na ni niwa bu mu waxee ñu dégg mu daal di wàcc ba tolloog niwa boo xam ne bu waxee ñu dégg ko mu langu moo tax mu ne ko bi lisaanin arabiyyin mubiin mu ni ko alquran moomu nag na nga ko moy ndax moom rek mooy loo xam ne boo ci moyee mën ngaa waat ni yaa ngi ci yoonu siraatul mustaqim yaa ngi ci yoonu jëm ci suñu borom fastamsik bi a uwaya ilayka innaka ala siraatul mustaqim alquran bi ñu dikkee nag suñu borom daal di séddale responsabilité yi li ma ko waxee woon responsabilité la ku ci yaakaar ne amoo ci benn masuulé ci di ab jullit ne na sa jullit wërut ab jullit day nangul am responsabilité ci alquran te war nako assumi li feeg ni ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango ba ci ni mara donte jango ba ci ni mara war nga it soxol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumi ndax alquran la du ni wat wattaaral la ci alquran suñ borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tutulun tusaloon bu fekkoon benn rek yàlla baax yonent bi ni ko alquran ngok ya ko moom yow so xet ya so xet ni ñu tell yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bi ko ne ya ko mom ya yaag saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina li ko la yaag saw xeet booba la masuliyé dugg booba la responsabilité dugg dañ nekk ci bureau taal sa climatiseur yar sa bi di seigne lu la neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam yowmal xiyam dina nee nga ab jullit nga ah ba yowmal xiyaam ba yowmal xiyaam alquran moomu nag dafa ñëw ngir nekk sama tax taasu jaam ñi waaye rawatina ñu koy jàng ndax gën gi mbindee sallallahu alayhi wa sallam maa ne iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawma alqiyamati shafi'an li saa'ibihi sallallahu alayhi wa sallam na na ngeen di jàng alquranul karim mu ne alquran yawma alqiyam suñ borom da koy soppi jëmm mu ñaadam ñaadam dafa suñ borom mu suñ borom mu ne labbayk mu ne daawul dañ di ma jàng guddeeg bëccëg dama ba nekk ci yóbbu a àjjana mais suñu borom ni ko jàppal ci loxoom yóbbu àjjana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawma alqiyamati shafi'a li sa'ibihi من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقع صلى الله عليه mooy ñooñ alquran bu fekkoon ni yàlla dana am famille famille yàlla mooy ahlul quran mooy ñooñ alquran mooy famille suñ borom rabbi siti wa jàll sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis nee na إن القلوب تصدأ كما يصدأ العديد فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وحا فقالت تلاوة القرآن وذكر الموت عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام دخلي ah maa ngi leen di jéng de doomu aadama bi mu juddee dafa judd wàllu fitra fitra mooy lan moo xol bu yam xol bu xam yàlla minal awal ilal aaxar mu ne waaye nag xol boobu judd wàllu xam yàlla di ñëwee ci àddina àddina bi di ko taasal ñuy am yu ñu ittoo ci àddina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla noonu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fàtte yàlla mi ko bindoon moom ko xamatul ku yàlla xamatul lu yàlla mu ni xol boobu dand ba tilim ba mel ni xat mu waaye nag yàlla indil nañu fi loo xam ne buñ ko ko xam ngeen am xacc de mooy li koy ñawal mu ni buñ jëlee xacc moomu yàlla jox nañu ñaari xacc yoo xam ne buñ jëlee xacc xol dina dana dem ba mel ni ba muy doog a judd xam yàlla mu ni ko ñaari xacc yoo yan la mun mooy alquran ak fàttaliku dee dama bu fekkee ni dee du jóg ci xolam ngeen baal bu fekkee ne dee du jóg ci xelam mukk mukk mukk jamono bu nekk mu fàttaliku dee loolu dana yeesalaat xolam yeesal ngëmam yeesal wóolu boppam ci yàlla wala bopp wóolu boromam rabbi sitoo jàll gëm ko bu mu setee sallallahu buñ masaana ñëw ci moom di tagg nit ci mën a jaamu yàlla naan ay waay diw diw day abit moom day yendoo woor di fanaanee naafil la sallallahu alayhi ni waaw moom mun def ak dee ndax danañ fàttaliku dee ñu ne ah moom nag moom xelam du dem ci dee ñu ne accam kooku du waaja accam kooku du waaja ñu ne du takk sànni allah akbar allah akbar ashadu la ilaha illallah ashadu la ilaha ashadu anna muhammad rasulullah mu ne kon nag kooku du waaja waaja dëgg mooy koo xam ni day fàttaliku dee sallallahu alayhi wa ni li ko taxal mooy alquran ñu jàng alquran ak di fàttaliku dee loolu mooy xas ci xol alquran moomu boo gisee yonent bi ni xayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ci gën ci société bi mooy ñi jàng alquran bu ñu di ko jàngalewaat ñoo gën ci société bi bu ñu seetee sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn addis quran almairu bil quran almairu bil quran ñu ne mu ma a safarati kiraamil barara sallallahu alayhi wa na intellectuel quran intellectuel alquran nee na saa buy ñi koy accompagner mooy malaaka ñi koy accompagner mooy malaaka yi al bil quran maa safarati al barara ah alquran wax na ko suñu borom nee ci alquran bi aydi safaratin kiraamin bararatin bi aydi safaratin kiraamin na am na malaaka yoo xam ni dañuy voyagé rek sallallahu alayhi ni intellectuel alquran saa buy nee na yi ñoo koy accompagner ñoo koy accompagner yàlla tere la ko xeeta bi muy alquranul mu nekk seen benn dustuur muy constitution boo xam ne moo leen di xamal la fekk ci ëllëg mu yowmal xiyaam constitution boobu di alquran moo nga xamee ni ñu jàng xam-xamu constitution ñu di leen tuddee constitutionnaliste yi nga xam ne bu benn warante amee ci constitution bi ñoom la ñuy kenn ku nekk indi xalaatam nu mu déggee constitution bi ñi nga xam ne noonu lañ koy traduire ñoom ñi nga xam ne ñooy constitutionnaliste yi nga xam ne ñooy jàng wàllu ko noonu la amee ci nit bi ñu ci alquran dañ cee spécialisé ci biir spécialisé biñ ci wax yoo xam ni amal njëriñ suñu addina amal njëriñ suñu àllaaxira ñu di leen tudde al mufassiruun mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo firi téereb yàlla bi rabbi sitwa jàll xam ngeen ni nga xam ne moo jëkk fi alquran mooy ku ñu wax imaamul mahalli ak ku ñu wax imaamu suuti imaamul mahalli moom moo firi woon téere suuf bi bi nga xamante ni nii firi na téere suuf bi yàlla dogal ak dundam jeex mu daal di faatu bi imaamu suuti ñëwee daal di firi téere kaw bi dëndale ko ak téere suuf boobu nga xam ne moom la imam xalli firi woon ñoom ñaar ñooy ñu jëkk firi alquran ci kaw suuf waaye gis nga ñi nga xam ne ñooy jàng wàllu droit bu ñuy étudier benn texte ñii ni texte bi lii lañ ci jublu ñii ni lii la ci jublu ñii ni dafa bàyyee entre parenthèses fii ila axiri ila axiri yi demal ci alquran quran ñi nga xam ne mooy mufassiroon yi am na ci ay araf yoo xam ni ba léegi kenn mënu koo décortiquer ba léegi kenn mënu koo décortiquer ba léegi kenn mënu koo décortiquer ñii dañ ci wax rek fa seenu xam toll jeex na am ci nag yenn wàlliw ndax ci biir ñi nga xam ne ñooy euh, homme de droit yi nga xam ne ñoo jàng alquran def ci am ñoo xam ne dañ leen di ay wàlli ñoo xam ne ay borom yu xam-xam rek waaye dañ caa bokk nag da ak lu ñu tudde wilaaya yàlla di leen xamal te leen ay secret am ci ñoom ñoo xam ni am na lu ñu tudde ak roful muqatta ñu wax ni yàlla ci boppam moo leen ko firil ay roful muqatta yooyu muy leetar yooyu nga xam ni mu fasiroon yi yëpp buñ ci accès rek dañ naa allahu ahlan bi muraadihi allahu ahlan bi muraadihi lii daal kenn mënu ko interpréter boo demee ci constitutionnaliste ñi xam ñoo ñoo droit ci wàllu constitution ñoom tamit léeg-léegi nga gis ñu egg foo xam ni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te dëgg génn la dëgg génn la de naka noonu mu fassiroon yi ñu ne bu ñu accès ci alquran ñun ñëpp ku ci ne bu ñu ci araf yii ñuy lu ñu tuddee al uruful muqattaa wala bu la neexee nga ni fawa fawaati u suura mu ci mën a doon buñ ci accès allah ahlam bi muradihi lañ wax li yàlla xam ñu ci jublu al uluful muqatta yooyu daf caa bokk lu mel ni alif lam mim bokk na ci lu mel ni alif lam ra bokk na ci ha mim bokk na ca taaha bokk na ca nuun bokk na ca xaaf bokk na ca kaaha yaa xayin saat yooyu nga xam ni ay uruful muqatta la dañ wax rek ne allah ahlam bi muradihi rek génn ci mu am ci wàll yi nga xam ni kiñ ci gën a jege mooy sëñ Tuubaa moom bi mu agsee ci alif lam mim nee na yàlla ci boppam moo ma ko décortiquer yàlla ci boppam moo ma décortiquer alif laam miim ñu ne ko nan la ko décortiquer mu ni daf ni ma alif bi daf ni ma aw rastukal kitaaba alquran day ci yent yàlla muhammad laa ko wàcce woon waaye yow sëñ tubaa doonuloo naa la ko aw rastukal kitaaba nee na laam gi ni ma laqantukal kitaaba alquran day ci muhammad laa ko wàcce woon maa ko joxoon jibril mu safa ko yow sëñ tubaa nag man yàlla maa la sa téere bi laqantuka alkitaaba maa la sa alquran nee na ñun gi mu ne ma alquran de muhammad laa ko joxoon alayhi salaatu wasalaam waaye nag léegi bis ni ki tey yow sëñ tuubaa may naa la ko léegi jëlal alquran mu ngoog muy ma ko kitaaba nga xam ne kon moom ñetti araf yooyu nee na yàlla moo ko décortiqué firi la ko ko nii xamal ko ni ko araf yii lii laa ci jublu yow sëñ Tuuba radiyallaahu te araf yooyu am na leneen lu mu dencaat ci biir mu sëñ Tuuba waxul moo tax sallallaahu alayhi wa sallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alqur'an araf wu nekk dafa am biir biir booba am beneen biir booba am beneen biir ba muy juróom biir ba muy juróom biir am ci xam ni biti bi nii dong lañ xam am ñoo xam ne xam nañ biir bu njëkk bi am ñoo xam biirum ñaareel bi am ñoo xam ne xamuñu te dara dara dara dara dara dara dara boo demee ci taaha ñi ni sallallahu alayhi la ci jublu ni ci yaasin ñu ni yonent bi la ci jublu lenn ci mu fasiro lii waaye ñoom it dañuy interpréter rek waaye xamuñu dëgg dëgg lu ca suñu borom jublu rabbi si jàlla xamuñu ko ñu mhm. gis ni kon alquran ñoom ci yooyu le mu am ci leetar yoo xam ni xameesu ko yàlla décortéwu ko te koo bàyyi noonu rek mu fasiroon buñ ci accès ni allahu ahlam bi muraadihi allahu ahlam bi muraadihi waaye nag bokkut ak sunu constitution yi nga xam ni simple à doomu aadamaa ko defar nga xam ne ni njuumte rek la feese dell nag ñu proposé ñu ko ñu force force da ngeen koy dund for force constitution bi di alquran yàlla dani rabbi si tuba jàlla naat alquran yahdi li lati hiya aqwam sallallahu alayhi wa sallam sun borom da ko wax yu wàcc ci moom alquran ñu ko mboolem constitution constitution bi dong moo ci direct inna ata alquran yahdi lilati hi aqwamu mboolem constitution yi constitution bi ñuy wax alquran moo ci gën a wér gën cee jub amul defe naa amul yaakaar naa amul budu woon ak nangam ndax maa farat naa fil kitaab min sëy suñ borom rabistu jàlla séddale jaam ñi ci juróomi tomb wala juróom-benn mu ne juróom-benn ñu fekk ñu nii ci alquran ci constitution bi ñuy tudd alquran ku ko gëm gëm nga yàlla juróom-benni tomb wala juróom-benni article ñu ne yoo xam article huit article neuf constitution bi ñu alquran suñu borom nee juróom-benni article la ci yoo xam ni ku ko gëm-gëm nga yàlla moo tax mu tàmbali na alif lam mim kitab constitution baa ngoog ñu waaw mu ne laa rayba fii hudan lil muttaqin si ci sàkk ñëkkul ci ni constitution bii di alquran ku nar a texe dana ko gëm ku nar a texe ku ne mën na laa orienté ba wan la fi ngay teg sa tànk ba doo tarxiis xuddan lil muttaqin kon benn ngoog xuddan lil muttaqin al muttaquuna dong la alquran mën a orienté ba ni leen yàlla mi ngeen di seete ngi nii bantal sa baaraam allasina yuminuuna bil xayb ñaareelu article bi mooy nga gëm kumpa mooy gëm loo gisut yàlla ne àjjana am na ku ma jaamu yóbbu la ca safara am na ku ma def yóbbu la ca gisoo àjjana gisoo safara nga gëm ko yàlla ne siraat am na da ngeen ko jéggi gisoo siraat nga gëm ko yàlla ne dee dekki am na gisoo boo ko dee dekki nga gëm ko allasina yuminuuna bil xayb muy ñaareelu article ñetteel bi mooy waluqimoo salaat loo jàpp lu mu rëy rëy fi yow lu mu foor foor fi yow waxtu julli jotee nga ne ko fa yël ban liñ te dem julli ji wa yuqimuuna salaat mhm. wa yuqimuuna salaat boo nekkee ci tool yi dañuy tuddee jardin wala tool bëri yaa ngay witt raisin wala ngay witt pomme wala ngay witt mandarine jot mu ne mu ne tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga doon witte te dem julli ji ركن الصلاة يعني شيء اسم بي اسم باني بروديور وقت جلي جاب هنا من فايل مسلم بدم جلي فايل مسلم بدم جلي ركن الصلاة لولو ماي نينتيلو ارتيكل ولا بو نيتيل ارتيكل نينتيل ارتيكل ماي ولما رسخنا من فقول لله يالله ورسغل لمي توتي توتي توتي boo gisee sa moromam jaam mu lot te nga mën ko caa dimbale ko ci ngir yàlla bi maa rasaxnaahum yunfiquun bi maa rasaxnaahum yunfiquun mu ngi am mu ñëw muy bari salaire bi ngay ko par weer mu ne mu ni nga participer ci mu wër la ni daayira bi mu jëm ci yàlla nga participer la ni feesu daayira bi fa mu jëm nuyut yàlla mukk te yàlla rek la jëm nga participer mu wóor la ne daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wóor la ne daara alquran ji soxla na ay lal nga participer mais maa resox naa ñu ci mm-hmm. waxoon naa ci waxtaan weesu nag ni comparaison n'est daara yi nga xam ni mooy daara yi mel ni daaray xaadim bi nee ñu jàppoon bir ci démb di ko jéem a ñirale journaliste yi dañuy daal di daw dem ci daaray sëriñ si nga xam ni li ñuy récolté ci ab xaalis kenn xam nuñ toll ay keesi daayira ñu ngay recevoir kër buur wala bu jóge barab sàngam sàngam li ñuy kenn xamul nu mu toll ba noppi nag ñu bëgg koo comparé ak sa xaadim bi moo xam ne nii moom amul benn tool bu ko jox addiya effort yi boppam rek ay moyen boppam rek ci la ci la ci la ci la taxawal lim taxaw ay moyen boppam rek bëgg leen a comparé naan daara yi suñ diw ñoom duñ yalwaani daara yi suñ diw suñ diw ay di récolter ay millions yi millions ci état te boo demee nag fu mu nii moom moomu di di alal ji tol noonu xaadim géey ma nga xam ni effort boppam képp la def boo demee moo ko dàq jàngale gën koom bari lu muy mokkal ci ay donga ndax am na sëriñ soo xam ne nii donga yi nga xam ne moom la ñu yar ci seen daara yi jublu ñun te jàngal leen alxuraan bañ mokkal waaye liñ jublu mooy téyel ko fa seen doom rek buñ buñ seen doom màggee ñu doon seen i taalibe loolu dong lañ ci jublu nga bëgg a comparé ñooñu nga bëgg a comparé ñooñu ñu for force nag xaadim gi eh, da ngay mel ni daara yi suñu jiw wala wala wala muy maa rasax na ñun fi kuul loolu mooy ñeenteelu article bi juróomeelu article bi mooy wallasiina yuminuuna ma unzila ilayk bokk na ci article bi nga xam ni ku ko gëm sa ngëm yàlla yàlla nangu ko mooy nga gëm ni alquran yi yàllaa ko wàcce ci yonent yàlla muhammad du ay lépp du luppeen ay lépp du luppeen nga gëm ni alquran yi yàllaa ko wàcce ci yonent yàlla muhammad caleen déedéet juróom benneel bi mooy wa ma ansalna min qablika mooy nga gëm ni alquran ji yàlla wàcc ci yàlla muhammad am na yeneen téere yu ko jiitu woon yàlla wàcc woon ci yeneen yonent wa ma ansalna min qablika wa bil axirati hum yuqinoon article yaa ngoog nag wa bil axirati hum yuqinoon nga gëm ni bis dana ñëw loo gudd dundal mu ngi nga gëm ni da nga mas a dajeeg yàlla xaw ma kañ doon nag waaye gëmal ni da nga mas a dajeeg yàlla de ak loo mën a def ci kaw suuf wa bil axirati hum yuqinuun suñu borom nee na article yi ma lim ku ko gëm ñooñaa gëm mu ni waxuma gëm sax de waaye ñooñu ñoo ne ci njub ulaayika ala xudan min rabbihim ulaayika hum muflihun suñu borom ne ñooñu ñooy nekk ci dëgg dëgg ñu gëm article yi ma nekk ci constitution bi ñuy tudde alquran ñooñu ñooñu dong ñoo nar tax ëllëg yawmal qiyaam ulaayika humul muflixuun ulaayika humul muflixuun suuratu baqara kon nag gis nañ ni jullit ñi masuulee am ci alquran bu fekkee ni nii ko assumé gëm di xaar alquran seen kam lay kàttan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wa sallam daa wax ak xeetam ni leen absiroo fa in ata alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fa tamasuku bi yii mu ne jàpp leen ci alquran jàpp leen ci alquran bëgg leen te mooy ci bu baax naa mu ndax alquran dong mooy loo xam ni ñaari calka la ñaari buum ñaari wet mu ne benn wet gi mu ngi fi yéen ga ca ma nga ca yàlla alquran rek nañu waxagum benn constitution boo xam ne ci constitution suñu réew boo xam ne dañ naan constitution bii parti baa ngi yéen bi ci nga yàlla amut amut amul de moo tax bu ñuy jàngal seen làkk wi lu ñuy wax lu ñuy wax dañ ñuy wax ni addina danga nga am fexe la dund dund bu propre boo ko mënul perte nga loolu donc la gëm la de gëm loo ñu mukk ni ñu am na beneen monde bu am bu bokk la bi nekk alquran rek moo lay gëm loo ne ah monde bii nga nekk ni dëgg la monde la gaa waaye nag am na fu muy terminé des na beneen monde boo xam ni amul fu muy terminé des na beneen monde amul fu muy terminé monde bi nag am na fin moom waaye bële amul fin de alxuraan moo lay jàngal loolu moo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nekk da nga mu nag waaye bal tuusiruuna ayaat ad dunya wal axiratu xayru wa abqa kay ñaari monde am bii mooy première passe bi rek mu lu yàgg yàgg dañ fi jóge am na beneen monde bu des moo war a dundaat ñaari monde yi bu leen comparé de parce bokkuñu mu ne bële moo gën bii nga ne bi a jëm ëllëg nga nekk moo gën bi nga nekk yéen ñi nekk bitim kenn ku nekk mooy def li fexee dajale li dajalaatu li dajalaatu loo bëgg ab yëbbal booy ñibbi si Sénégal ab yëbbal rek nga moo la tax di dar dari suba ngoon yeewu ba matin cinq heures ba matin nga ne fa naam dramé tool bu nu nga wëttu boo xam ne boo ñëwee fii ci Sénégal njaay daal di koy mën a terloo bu nekk sa teraanga nga tabax say R plus 4 war sa oto bu rafet takk say jongama mu ne monde ba it noonu la bu fekkente ni da ngaa ñëw bitim réew te yoxo du yàgg ba nga am ay R bu fekkee ni yëppee yoxasoo du yàgg mukk ba nga am 4 4 boo dawal R Sénégal mu nag monde ba it noonu la bu fekkee ni yëppee boo demee dafa fekk dara boo yëpp yoxasoo nee monde booba boo demee doo fa fekk dara ci monde bii nga nekk nga yett ko yaxas boo demee fekk fa dara boo demee fekk fa dara sun borom nag nee na suma rasna alkitaaba lasina astafayna min ibadina suma rasna alkitaaba lasina astafayna min ibadina man yàlla nag maay tànn sama jaam ñi nga xam ni ñoo ma soob ma soob leen ma fab alquran def ko ci seen dënn ñu di ma ko sàmmal mu jaral leen seen bakkan jaral leen ci alal bu sëñ tuubaa man yàlla maa tànn jaam ñoo xam ne dama leen a def ñu nekk gardien de la constitution wu alquranul karim ni président nekkee gardien de naa sama jaam ñoo xam ne man yàlla ñoom laa def ñuy de la constitution wu alquranul karim suma awrasnal kitaaba lazina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina loolu la suñu borom wax ñooñu mooy ñi xam ne boo laale alquran jot seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk ba ko tamit ban xanu yalla ko ni sa baram ni ko may na la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena képp ku yàlla jox alquran képp ku yàlla jox alquranul karim nga yar ko nee benn waay romb la yor ab quatre kaatam yor ar plus cinq am ar nga ni jees ñu ko ew waaye ndaw ay yow boobu meloon ni yow yonent bi nee na képp ku def loolu na la wóor ni xeet nga lu rëy lu yàlla màggal yow li yàlla jox moo gën lim jox kooka nee na ku yàlla jox alxuraan bu noppi nga waññu ko di xool keneen dafa ni kooka la ko yàlla jox moo gën li nga yore na ak koo mën a doon yow xeeb nga yàlla xeeb nga li la yàlla jox xeeb nga lu yàlla réyal alquran ak riifa suñ borom ak riifa suñ borom yow nga yor alquran bu lépp waññu ko di ñee keneen waññu ko di ñee keneen ñu ko yenn ci sëriñ daara yi defee yor alquran bu nuppi di yappar yappari topp ci waa joo xam ni jàngul baasin nii mara waxaale wuñu ko alali addina rek la yor ci raa ngay dina rek nga bëgg a dund sax nga topp ko rek bëgg a dund sax nga topp ko rek <laughs> bëgg dund rek wax naa ko bër ci démb ni leen ñii di tudde modernité de daara man man de xam naa bu fekkoon ne sañ naa ko wutoon dama naan yàq de daara yàq de daara laa koy tudde yàq de daara ak lum rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal ak nañ xool mujj rek nañ xool mujj rek li ma mën a wàdde mooy modernisation bi ñu wax wallahi la xasim bu fi amé bu fi amé do to fi gis bané ko mokal alquran moom loolu mën naa ko waat bané gu wattu do to ko gis do to ko gis de ah ñu bayé ko wa dara ñu bayé ko wa dara bu fekkonte ni ñu ko mën a waxee maanaam parentalité tubaab yii parentalité tubaab yii bu fekkonte ni day du ñoom bu ñu ko waxee bu ñu woon tey suñu Moustapha Saliou Mbacke mooy président de république nee dafa bëgg mu jublu sa daara ah suñ xel du am lu ñu werante ni kii diine ma ko gënal alali addina diine la diine la gën a gëm ci signé ay convention bu ñu woon suñ Babacar si Abdoul Aziz mooy président la république dafa bëgg a moderniser daara ah bu boobaa duñ ci wax dara ndax wóor nañ ni diine moo ko gënal convention yi diine moo ko gënal ñi nga xam ne nii ñooy association yi nga xam ne dañoo taxaw ñi dañuy bëgg a dund te fasuñu yéene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci sëriñ daara yi su boobaa danañu lëng liñ wax danañu ko gëm waaye dama ni koo xam ni yow Molière ak Victor Hugo ñoo la jàngal yar la bañ lay jàngal luñ la jàngal tootoo tàpp paate koo mën a nax nanga ko nax àllaaxira amut xaj boo jekku sàcc ko bu fekkee ne xam na ni boo ko sàccee kenn du la jàpp loolu li ko ñun jàngal de maanaam fin wu seen jàng mooy ak fu ñu mën a jaar ak leneen luñ mën a jàng nekk ay nekk ay homme de droite waaye lépp rek mujj mooy lii xaaya bi xaaya bi mooy den dund ci kaw nit ñi te yow doo def dara fexeel di nax nit ñi di lekk rek loolu si xaaya ci njàng wuute naa constitution bi di alquran moom xaaya bi mu lay jàngal mooy ah na la wër lay ñaar dërëmi jàmbur boo ko lekkee te moomoo ko ah, boo duggee ci bàmmeel gisuma la mbaaw de waaw kay moo tax alquran yonent bi ni léeram mu ëllëg yow man xiyaam sallallahu alayhi wa sallam nee na ci addis ba gisuma lu dàq ram ma alquran nee na du yonent du malaaka xoolal yonent ak malaaka ñi gën a jege yàlla nee na li muy mën a mën a ramm alquran leen dàq ramm mu ne maa min safiin afdalu inda allahi mansila min alquran laa nabi wala malaayika wala xayrihi mu ne gisuma lu gën a mën a ramm jaam bi sowe ko ëllëg yow man xiyaam du malaaka du yonent du wàlliw ku mu ci ñooñu rek alxuraan na dàqaram mu ëllëg yowmal xiyaam waaw ndax alxuraan wax yàlla te ñeneen ñi des jaami yàlla lañ alxuraan malaaka jaamu yàlla yonent jaamu yàlla wàlliw jaamu yàlla alxuraan na wax yàlla moo tax mu dàqaram mu yonent dàqaram mu malaaka dàqaram mu wàlliw mu leen waxaat ci beneen addis moom sallallahu alayhi wa sallam afdalu ibadatu ummati tilaawatul quran li gën ci li gën ci sama xeet wi di ko jaamu seen borom li ci gën mooy jàng alxuraan mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yëpp yëpp yëpp jàng alxuraan ci gën a kawe loolu la sallallahu alayhi gën a kawe moo tax euh, imam ahmad anbal radiallahu taala anhu mas na gént gis yàlla ci gént mun yaa rabbi suñu borom ni ko labbay ko yàbbi mu ne ko waaw yow liñ lay jaamoo pour jege la ana mu la ci gënal suñ borom na ko ah xanaa jàng alquranul karim moom Ahmadou Hanbal nee na mu ne ko waaw xanaa ko day nga xam maanaay xam li mu wax mu ne ko déedéet même boo xamul maanaa sax ngay jàng nature bi nii rek ngay jàng nature bi nii rek mboolem li ñuy ko jaamoo jàng alquran ma ci gënal moom la suñu borom rabbi su jàll wax waaw wax ju toll ni yàlla mi bind moom wax na ko ba noppi nag ñu bëgg a jënde alquran ak leneen asal asal du ma asal du ma sàmm asal du ma sallallahu alayhi wa sallam من قراءة القرآن عن دعاء ومسألتي أحتيته أفضل ما أفضل الثواب الشاكرين يونت بنا نينا صلى الله عليه وسلم كيف كو خمي فيت سأخلا سخلا سا موي جانغ القرآن الكريم مني بو جانغ تاني تالي بي يالا دارا دارا دارا دارا yàlla ci boppam dana la jox lu gën lim daan jox santkatu yàlla yi te xam nga santkatu yàlla yi suñu borom nee na la in sakartum la azidannakum yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yow mi jàng alquran rek ba alquran noppi moo xam dangaa jàng isib moo aw saar moo xam ñaari isib moo xam robo moo ba noppi rek fab téere bi teg ne te nee na ñëwoo dara kat mu ni mi def loolu alxuraan nekk sa yitte nga di ko jàng guddeeg bëccëg soo jàngee teg boo noppaloo jàngaat te doo ñaan yàlla dara nee na yàlla dana la jox lu gën li muy jox santkat yàlla yi tax bu si tuwee yàlla lu gën jox santkat yàlla yi alxuraan karim dañuy faral di wax ni boo ko dee jàng te bëgg sa tuyaaba bari mooy saa booy jàng alxuraan da ngay teewlu màggu yàlla li wax ji may bëgg wax de am na ko xam ne moom a bind moom ma gën naa kawe moo ko jëkk a wax wax ji may jëkk wax wax ji may bëgg a am na malaaka moo xam ne moom wax jibril naa jege yàlla di bëgg borom bu wax wax ji may bëgg am na ku wax muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi sayyidil awwalin wal axirin moo ko jëkk a wax ngay teewlu màggum ñu liñ la gën a jege yàlla gën laa bëgg yàlla gën la ko xam ba noppi nag wax nañ wax ji ngay bëgg a wax di ci barkeelu te arab yi dañuy wax ni albarakatu lil mutabarikina albarkatu lim mu ta bari kii na barke ñu koy am mooy ñi nangoo barkeelu rek bu jëkkoon boo gisee suñu soxna yi barke yomb leen bu jëkkoon ñu jàll sax ñu ñu na may leen des wa doo wër ne mu koy ëmb wàllu léegi nag xam ngeen civilisation lañ waxee waa ji day naan nit yàlla bi day ñëw naan ba mandi desal nga jël ni këpp ca taatu garab wala nga tuur fële mu naan kafe ba desal nga këpp bu demee nga dem tuuri nga dem tuuri albarakatu lil mutabarrikiina mën naa ko misaal ci benn nitu yàlla bu mag boo xam ni yàlla dafa dogal am soxna soo yàgg naag borom këram te mën te am doom mu dem siyaare ji benn wàllu defal muuraay dem siyaare ji ko ni ko damaa bëggoon daal nga ñaanal ma yàlla doom ndax dégg ni kooku yàlla la kooku daal di jóg julli ñaari rakka ñaan suñu borom suñu borom wan ko doom ju daal di wane ko ñëw ñu ko ñu jéggal ma de waaye gisuma sa doom yow doo am doom mu ne ah ne waaw ah soxna si daal di jóg ni kon na far rek doy loo yàlla yàlla dogal soxna soosu ñu toog ba waxtu yoor yoor benn bis mu génn këram di seeti benn xaritam xam nga li dikki àll yi day am pénc mu seeti bare na nag mu romb ci pénc mi seen benn waay ca taatu garab ga ngelaw li di farafari waaye muy niru ko xaw a nitoo di ko mu daal di koy jege sukk nuyu ko mu fay ko mu daal di jàll kër xaritam boobu waxtaan ba waxtaanam jeex muy dellu këram rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu nuyu daal ni ko waaw ku baax ki ndax doo ma dimbale rek ñu yegg ca kër ga ba ngelaw dal ko ah man daa mel ni xanaa baaxoo ma nekk ci kër mu ne ko waaye mu ne ñu ànd dem ñu demee mu bëgg koo dugal néegam mu ne ko déedéet baleel ma yéen bële aw waañ ñu nekkoon foofu mu baleel ko ko mu daal di lal ba xam mu untuk dia tëdd mu tëddee ba yàgg añ bi jot mu yokkal ko mu añ bi nga xamee ni waajaa ngi gont waxtu tàkkusaan daal ni ko yow loo bëgg man ko ah, man de bu dee teraanga rek am naa ko man daal leen rek ma dese mooy sama borom kër bi daal yàgg nañ doom di jël aw kayit ñu ko xusi xusi jox ko ñu ko jëmbal naan mu jëmb di jël lu kulu murit yàlla dogalee mu am doom ba doom bi tàmbalee mën dox mu doom ja walaat muuraake seetiwaat nitu yàlla boobu ñu ñëwee nuyoo moom wàcce doom ji ñu ko defee sama ñanam ñu ko ku jur kii ah, ah, ko jur de mu daal di dugg julli ñaari rakka waaw suñu borom kii na am borom ne ko kan moo la wax ni magasin yi ma la wanoon dong la am ci magasin am naa yeneen yu wonut am naa yeneen magasin yu ma wonut kon gis nga suñ borom aki sew sewam aki sew sewam kon nag barkeelu boobu lil mutabarikiina boo dee jàng alquran wane ni yaa ngi barkeelu ci waxi suñu borom yaa ngi barkeelu ci waxi gën alayhi salaam ndax suñu borom rabbi ci jàll <clears throat> am na riwaaya bu wax ni suñu rabbi ci jàll jàng na eh, suuratu taaxa junni at jàng suuratu yaasin junni at doog doomu aadama doog doomu aadama maanaam doog a doomu aadama alquran yonent yi fi jiitu woon ni ñoom ibrahim ñoom noox ñoom muusa ñoom isa ñun ñëpp téere yàlla wàcce woon ci ñoom bi nga xamante ni malaayika yi gis nañ tawrat gis injil gis saboor waaye malaaka yi liñ wax ci alquran biñ gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaaka yi kero bañ déggee suñ borom mu jàng suuratu taaha ñu dégg ko mu jàng suuratu yaasin malaaka yi lañ la wax dañ ni tuubaa li ummatin yanzilu alayhim xaasa ay waay ndaw xeet wu nar a texe xeet wi alquran wax yàlla di wax xeet wu nar a wàcc ci moom ëllëg xeet wu nar a texe ngoog ndekete booba mooy xeetu muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tuubaa li ummatin yanzilu alayhim xaasa del waxaat ni tuubaa li ajwaafi ta'milu xaasa daan ni texe ñeel na xeet wi nga xam ne ëllëg wax yàlla ji ñoo ko nar a mokkal xeet wa nar a mokkal wax yàlla ji ëllëg ñooñu ñoo nar a texe dëgg dëgg texe tuubaa li ajwaasi taamul xataa dal waxa ni tuubaa li al alsinnati yantiqu bi haada tere texe ñeel na xeet nga xam ne seenu làmmiñ ñoo nar a répété baat yi yàlla di wax muy alquranul karim rabbi situ wa jàll tax sallallahu alayhi wa sallam ni inna allati laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil xarib sallallahu alayhi wa sallam nee boo fëgg dënn boo fëgg fekkoo ca wenn fepp mu naa ah, mu ñu dëkk bu ràpp la dëkk bu ràpp mu dëkk bu ay dem ba fa sallallahu alayhi wa sallam nee na boo fëggee ab dënn fekkoo ca mu ni moom dëkk bu ràpp ñu yem dëkk bu ràpp ñoo mhm, yem alquran nekk lu parfait nekk lu parfait su mbaram laa yaatihi lbaatilu min bayni yadi wala min xalfi alquran lu parfait la dara lu négatif lépp positif amul dara lu négatif lépp positif noonu la ko suñu borom waxee rabbi situ wa jàlla alquran amul lu négatif lépp positif loola tax ñi nga xam ne ñooy nit yàlla yi ñoom duñ doyal mukk di déglu alquran duñ doyal mukk ci déglu alquran fuñ toll luñ gën a déglu alquran alquran neex ci ñoom gën a yéeme ci ñoom gën leen a jàjji gën leen a delloo ci seen borom daañu gis ci borom kalaamun ñenn ñi nee nañ sëñ tubaa ko dund ñenn ñi ni amoon na ci tuur yu naar yu jëkk yi ala kulli xaal borom kalaamun lu mu wax dafa ne kalaamun qadimun laa yumallu samahahu فنصح عن قول وفعل ونية بيستفيه من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرة فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومهلتي من كلام قديم لا يمن مستمره من وحي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن مستمره أجد مجي تأم خل تخم لي القرآن أجد مجي تخم لما القرآن من كوف بيقد مك مك القرآن من كل تخ من تنسح أن قولنا فيه القرآن jëfi doomu aadama kacceet ko ci alquran dara du ci jëfi doomu aadama dara du ci waxi doomu aadama alquran du jëfi doomu aadama du waxi doomu aadama beneen constitution boo fi gis nag jëfi doomu aadama waxi doomu aadama فنستح عن قول وفعل مني سما ييني دال ci alquran moy ci lay saafaro Mhm. alquran nee man yàlla maa wàcce alquran ngir mu nekk seen saafara alquran suñu borom nee maa ko wàcce ngir mu nekk seen saafara borom kalaam mun sama yéene mooy alquran mii nekk sama saafara min kulli daayin ci jëpp tawat nag feebar bu ma feebar rek alquran mii lay fajoo xam ngeen ni feebar yëpp feebar bi ci yées mooy feebaru rëy al kibru feebar yëpp feebaru rëy moo ci yées muy al kibru alquran day faj jàngoro ay kibru muy rëy jàngoro yi rëy alquran da koy faj mhm. jàngoro yi xam ngeen rëy moo alagoon iblis rëy moo alagoon iblis alquran nag day saafara jàngoro yi rëy xol bu rëy nekk alquran da koy dindi ci moom mu ni ci leeru alquran laay tegtaloo ci bu sama xol gëlëmee leerug alquran ci laay tegtal bu sama xol gëlëmee wa nuuruhu dalilun li xalbi inda jaxli inda jaxli wa ay su ma réeree wala ma gëlëm alquran laay leerloo mooy sama projecteur su ma réeree wala ma mu ne alquran mi rek laay leerloo laay orienté sama xol delluwaat ci suñu boram kon nag yaa rabbi mu ne mattix nii bi sirri uruf yi maa ngi lay ñaan nga xéwale ma terale ma ci sekkarat yi nga xam ne moo nekk ci ay arafam te nga leeral ci sama xol leeral ci sama dégg leeral ci sama nagu da nga ci leeral sama xol leeral ci ci sama nagu bët ku ñu wax Muhammad ibnu Kaab nee na alquran jii li ma doon wax sànq ni araf yi ñu gis ñi di ko jàng bokkut ak nam nekk ci lawul mahfuus محمد بن كعب نينا القطبي رضي الله تعالى عنه نينا إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد بن كعب نينا يوم القيامة بيالا جانجي القرآن دوم آدم يب بن دجاجة فاكبا نتا جين الملاكة يو سن جانج القرآن كريم نحن ديني بكرا زي سن برام بسو جالا بفكنتني دوم آدم يبكنن بدجاجة بن فاكبا daañu mar xonjéen ba bu ñu naanul dee ñii di xuus ci seen ñaqu bakkaar am na ñoo xam ne seen ñaqu bakkaar dina ñëw ba ci seen bëti wéen bakkaar dana ñëw ba ci seen ndigg ñii seen ñaqu bakkaar dana ñëw ba ci seen i bakkaar dana ñëw ba ci seen baat ñii seen ñaqu bakkaar dana ñëw ba ngalaat leen ci seen i bu keroogee doomu aadama daw song yonent bu nekk yonent buñ song ni ko kaay wax yàlla mu àttanu lii moom dem safara sax ak gën a sedd bu ñu songee yonent yàlla euh, Adama alayhi salaam Adama ni topp leen fii man damaa ñemee dem ci yàlla naan ko dara yàlla mi a xam ne ba ma nee ba laal garab ga ma sob soblu ba laal garab ga mu yàlla baal ngeen man damaa ñu daal di ci yàlla naan ko dara. da ngeen a ko xanaa keroog ba nga xamante ni nii ci Égypte ñaar ña doon xeex mu di leen àtte sama loxori ci dal kenn ka mu dee bakkan boobu ma rayoon xamu ndax yàlla baal na ma ko léegi ñu ma dem ci naan ko dara ñu daal di daw song Ibrahima alayhi salaam Ibrahima ni si man damaa ñi ma dem ci naan ko dara xanaa xamu ni waxoon naa ñetti wax yoo xam ne nii addina te xamu ndax yàlla jàpp na ma ko ñu ñu wax lu ma ko wala déet ñu maa dem ci yàlla naan ko dara ñu daal di daw song yonent yàlla noo noo ni ci yàlla naan ko ni keroog ba suñ borom tabaraka wa taala ba mu yónni ma woote woote gaañu dama wuyu ma ma ñëpp yàlla ma xam ne ma yàlla di atte ëllëg kon kay ñu maa dem ci moom naan ko dara ñu dem ci yonent yàlla salaam mi nga xam ne moom mujj ñëw gannaaw rasulullahi moom tamit bu ñu ko waxee mu ni am na ñaari lay lii man koy mënu maa dem suñu borom naan ko dara ndax bu ma ko jógee nit ñi dañ maa tuumaal sama gannaaw naan man maa leen wax ni man Isa yàlla la sama ndey yàlla yàlla la yàlla yàlla la moom waxut moo sañ a taxaw ci kanamu borom bi ñaan intervention yàlla may ko intervention bu ko defee la ñuy a daw nag dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi nag doog a waaxu jëm ci suñu borom bu waaxoo bu jub suñu borom day daal di def rëpp tàmbali di sabbaal sabbaal yoo xam ni keroog la ko yàlla doog a xamal suñ borom ni ko siggil tey du bisub jaamu tey bisub ñaan la waxal loo bëgg ma defal la ko neen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di geesu daal ni ummati ummati yàlla sama xeebi sama xeebi mu ne bis boobee nga xam ne nii ci la yàlla war a a jaam ñi balaa atte jaam ñi day jàng suuratu rahmaan waa bis penc ñëpp dégg ko danañu dégg suñu borom yëkkati baatam bi jàng suuratu rahmaan ba xaqataay ca kaw ñëpp ko dégg Muhammad ibnu Kaab nee bu keroogee nag neexaayu suuratu rahmaan ak neexaayu alquran boobu ci baatam suñu borom bi baatu wurusam boobu nee bu keroogee doomu aadama yi buñ ko déggee buñ jàpp ni mooy alquran diñ doon jàng ci addina ñaaj moo tax sëñ Tuubaa ba nee alquran mooy sama yaakaari addina ak yi àllaaxira waxoon naa ko ci waxtaani weesu kitaab bi narjo min allaahi rahmatan wa nanjo bihi dunya axra min al karb min al karb ku xam sëñ Tuubaa ak fa mu toll boromam mu ni moom alquran yi yaakaaram yaakaar na lu yaakaaru yaakaar na lu yaakaaru mhm. yaakaar na lu yaakaaru ah ñu dem ba nag léegi addina bëgg noo wëlbati nag ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran sëñ tuba nee na laqad qarala ilu naasa wastaxlu bimaa yujuurul baasa wastaxlu bi ili maa laa yanfau fi lxabri wal asri maa laa yanfa nee na ah kay doomu aadama yaa ngi ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka léegi alquran passe temps lañ ko def mooy sa doom day nekk ci daara ji lenn ñi am na ñoo xam ne sax dañ ko tuddoon neexal xel neexal xel lañ ko tudde yóbbu sa doom mu gaaw jàng tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tas ni ma koy faral di waxee gisuma lu ko gën a garaaw man ni ma ko mën a firee mooy nga fekk nga jël sa doom jox ko sëñ Touba mu di la ko yaral nga ko ci loxoy sëñ Touba yut ko Molière laa ko gisee doom jox sëñ Touba mu la yaral te mooy alquran te mooy sëriñ daara bi mu di la ko yaral di la ko yaral ba am ci moom yaakaar nga xëy ni ko pang ñett wit ko Molière wala wit ko Hugo man noonu laa ko gisee man moom la Sëriñ Tuubaa wax fii na bari na ne doomam ba wàcc lay wàcc kat boo xëyul sax nga pang ñett jàng loo ji ko métier ko fee bàyyi mu jàng alxuraan wax naa ko ba tàyyi ci ñi nga xam ne si ñu doom dañu ne si daara ji mel leen alxuraan wu ñu tojut la ana lu koy toj mooy xam-xam wu ñu tojut boo demee raas bi ba ñëw te tojoo ko doo am ci fay loo añee de doo am ci fay loo añee de damaa amoon fi donga boo xam ne baayam bi ci réew googu la daan dematuñu bu ñu jàngee alxuraan ba bi nee daal moo fi daan faral di ñëw bu mu wàccee benn yoon rek mu noonu ma dama ko bëgg a yóbbu ci samay kayit bitim réew te kat sëñ Tuubaa lañ ko tuddee de ma ne ko ay waay ji kenn ko fee bàyyi mu jàng xam-xam dex bi boole ko bi jàng xam-xam mu déedéet fi nekk nii magal naa te xam naa ni bu ma ko fi bàyyee bu ëllëgee a yóbbu ndax at yii nii loo ba nga dem bitim réew pexe ya nga def ba lijjanti sa bopp dem bitim réew moom mii bu noppee mën na koo def su bëggee dem bitim réew mu ni atal gone gi day dem rek ma ne bisimilah fadal yóbbul ah mu daal dem defari kayitam da yóbbu bitim réew weesu aéroport Ndakaaru kayit nga ko xotti te sànni fële aéroport weesu ko léegi ngóor saa nga ca Ndakaaru di jaay fukki jaay Ndakaaru gi weesu ko sëñ ci daal ni laqad la inu naas iblis rek leen war iblis rek leen war waxut maay juurul baax sax mu di leen xiir ngay soxla woo loo xam ne ëllëg mbugalum bàmmeel dong la lay jural mbugalum bàmmeel rek wastaxle bi ilmi maa laa yem fa mu di la xiir ngay sàkku xam-xam xam ne addina képp la yem addina rek xam-xam boo xam yan fa u fil xabri wal wa maa laa yedd fa munu laa jëriñ dara ci mbugalum bàmmeel la ko munu laa jëriñ dara ci ba waaye munu laa jëriñ dara bu aw ay jëmee jëm si سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم نين العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بلا nga واخ خمال لي nga واخ خم خم موي جيتو جيف بلا nga جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو من لول كو جامل دوكو من بو غيسه سونو اوتوريتي كو جي واخ مو نان جارنا دار jaar naa daara xam nga jan daara la jaara daara yi koñ bii jàng ñibbi jàng ñibbi ba mokkal am naak suuf bu fa jógee dem fële ci benn école mooy seen école arabe yi nga xam ne jëmuñu fa dara lu dul daxala xaraja këlbun xirdun hmm, arnabun ila axirihi yooyu rek lañ fay jàng boo waxee naan jaar na daara am na discours yoo xam ne ku ko def da ngay xam ne ci du doomi daara de am na discours yoo xam ne ku ko def xam nga ni doo doomi daara am na ñoo xam ne moom def nañ discours yu négatif xam naa leen dëgg jaar nañ ci daara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yu ñuy jànge jaar nañ ci waaye seen discours yooyu yu négatif la ñu ma ko waxoon comparaison n'est bëgg ñoo comparer ñoo xam ne bokku nañ ñoom am na ci ku dégg mu naan dëgg-dëgg daara yi war nañu weesu fii ne ndax am na réew yoo xam ni ñu nga fay jàng alxuraan ba mokkal te kenn jéngu leen réew yooyu ngay comparé ak suñu yooyu fii Sénégal ñaata doomi jullit ñoo fi mokkal alxuraan te mosuñoo jaar ci jëng moo ëpp fukk ma ko ci réew yooyu te jënguñu leen Sénégal quatre-vingt-dix pour cent yoo gis mokkal nañ alxuraan te jënguñu leen kon diis yi nga xam ne dañ leen a jëng lu tax ñu jëng leen manque de moyen manque de moyen rek tax ñu jëng leen waaye quatre-vingt-dix pour cent leen te ñooñu moyen am moyen ba wattu alxuraan ñun buñ ko amoon dañuy naaw ak alxuraan moyen ñooñu am di wattu alxuraan ñun buñ ko amoon dañuy naan alxuraan far benn yoon ndax ñun amuñu moyen yi te ñoo leen ko gën a man gën leen koo dégg gën leen koo xam kon kay ñun bu ñu amoon moyens yi ay kon discours ko bàyyi bu ñu comparé ñu ñu bokkut bu ñu comparé ñu bokkulut ko defee kon xam naa suñ muudu waxtaan wi jeexul loolu mooy mawdu bi nga xam ne waxoon nañu dinañ ko mottali ci waxtaan alquran bi ñu doon def bu ñu doog a tàmbali maa ngi doon jàng aaya bu nekk ca surat anaam te loolu mooy li am discours yooyu ngay dégg yëpp ñaar rekk la ñenn ñi xëy dëgg la jaar nañ ci daara waaye nag comme am nañ ay association wala bokk nañ ci ay association wala bokk am nañ ay coopération bitim réew bañ di leen financé ñu ne seen école yu ni boy am na ci ku ma dégg mu def benn discours boo xam ne tey jii mboolem ñu génne ci école am ñooy saaga mag ñi tey waaw école boo xam ni ñi ci génne ñëpp ñooy saaga say maam booba école jar naa roy moyens yi nga am ba taxawal école boobu bu ko sëriñ daara yi amoon ñun danañ former ñoo xam ni waxuma la saaga suñ mag ñi waaye la suñ mag ñi defoon danañ def lu ñu toll la suñ mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu toll te yow ñi xamaguñ ñi nga former ñëpp d'accord ñu ngi ci condition yu baax waaye saaga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen biddaaloo saaga mag ñi ak di leen biddaaloo rek kon nag la ma waxoon fa man yuridullahu an yahdihi yasra sadrahu lil islam waaye nag wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan araja koo xam ni yàlla nam mu na ci yow texe nam ma ci yow yërmande nam ma ci yow mucc wallahi mun a wax mukk ni gëm nga lislaam ba nupp gannaawal suñ mag ñi ndax tey loo am ci lislaam ba di ko damoo gannaaw yàlla ci suñu loxo la ko yàlla jaarale ah ku yàlla nam mu ca safaan ba nag laa xadarallahu wala saman faaw buñ tuddee mag ñi sa xol jóg bu dee ci intellectuel yi rek seen xol fudd bu dee ci ñi xam ni jàng nañ waaye nag waaye nag melokaan nu suñ mag ñi amoon ci defar nit takbirul insaan ñuuxu leen jàpp nañ ne luñ añ ñàkk moo leen ko xañ ñooñu ba tey kat boo tuddee mag ñi seen xol jóg kon nag ñaar yëpp yàlla nañ ci yàlla ci war may gën ji mbindee sallallahu wa sallam def lépp nañ ko tey liñ war a def mooy fexe ba suñu temtulaay kàttan buñ mënta def lu toll ni lañ defoo nit mënta def lu ko gën ñu def lu ko niru def lu ko jege loolay li mat a wax loolay li mat wax loolay mat a wax ndax man damaa gëm ni bien vrai am na ci man yi nga xam ni ña ca bokk wax dëgg yàlla mel ñu ne war a mel defu ñu war a def loolu d'accord naa ci waaye nag bu boobaa attaqué ñooñu directement xam attaqué ma ñu kër Sulaaji Malik ñu kër Sëñ Tuubaa ñu kër Baye Ñas foo ci dem am na fa li ñuy tuddee jàgg loolu kenn wérantu ko waaye ba attaqué attaqué jàgg ji rek te bàyyi fi nag ñoom si amul bambal si doon laaj malik ñoom waaye booy booy bëgg lu naqari nit ñi ba tax sa ñooña ngay dal te ñooña yow fexe nañ fi dama waxoon benn waay baayam la jànge ki may wax nii baayam kokki la jànge ba man alxuraan benn bis ñu toog waxtaan mun na kokki daal léegi borom tuba yu gàtt yee ko yàq ma ne ko yéen borom tuba yu gudd yee fa nu ngi wut a toog mënu ma kokki léegi borom tuba yu gàtt yaa ko yàq ma ne ko yéen borom tuba yu gudd yi a fa nungu ko toog te guddi mënta am ginnaaw yéen borom borom tuba yu gàtt yi ñëw toog laa ko ton te bàyyam kokki la jàng alquran bàyyam kokki la jàng alquran nan kokki borom tuba yu gàtt ko yàq ma ne ko yéen borom tuba yu gudd yaa fa nungu ko waaye kenn ku nekk bu fekkee ne fekkoon sama maam ak imaam te loolu lépp di positif ndax ñun dañoo gis dara lu négatif lu fi suñu naan ñi lu tax ñu war koo mën a bàyyi lépp positif pour fi baax tey bañ lay topp suñu naan yi la waaw ñu naan ñun indee lu gën li fi suñu yi bàyyi woon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bàyyi loolu li suñu yi nekkoon noo lànk noo lànk kon suñu mudu ñu yemale fa waxtaane beneen yoon incha bi danaa a a participer rek ñu ñaanalante allah rabbi waxtu majlis bi sax jot na waaye doo ci am bëgg a participer ba tey rek boo ma defee suñu baax na te defee kon ñu ngi ndokkee di nuyu mboolem koy nuyu au moom tamit di koo xam ni ku bàyyi xel daara ji la euh, sëñ Koso di leen di ndokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna daba ju ñoom ku fële ci amérique ñoom tamit ñoom soxna ñoom bu sa ñoom bu sa ñis ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ñoom sëñ Daouda Fall Daouda Bey ñu leen leen ak suñu leen réew sëñ Dawar Seck dañu ko dégg ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla mboole ñu nekk diaspora bi ñëpp xarit jiite moom tamit ndeysaan jamono bu nekk ñuy woote di ànd ñun liggéey bi euh, ñu ngi ci ndokkeel bu baax a baax xam si lu bëgg rek bëgg lu baax ñu ma ko waxee woon rek incha allah waxtaanu bërki dee moo jëm naa ko sëriñ daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fa këram ñu bokk benn yool ëllëg yowmal xiyaam ñu bokk benn yool ëllëg yowmal xiyaam ndax lim naa fi ay dongo yu fiy jàngate xam suñu waajur daanaka te dara wéralu ko dudul rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cam tul ay kàttan ah may ñu ma ko waxee woon benn waay barki démb ñu ko eh, mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la eh, fekk boobu dafa ñëw di ma laaj eh, sa jumaa ji ku la financé dañ ko wax naq yi xam nga naq yi dañ ko dégg naa benn nag ci turu ma Samba ak turu ma dem ma ko day kàcc mu ne ma xaama ah, ne ko day kàcc de day kàcc sama ñaq rek ak benn benn taalibe Sëñ Tuubaa ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taalibe buy joxe lu ñuy tabaxee jumaa ba tey mu tabax jumaa mbaa mu mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ bu baax ci ngir ngeen jëf yal nañ yàlla fay ngir ji fay ci seen participation xeebu ko waaye nag ni ma ko waxee bëgguma wu dàll bëgguma bëgg bëgguma tubay ngir lan ngir baara rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow eh, doom yooyu yëpp dañ seen waajur dañ di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam ko man li ma la ko war a moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji ma ne ko waaye bisi ñu ñëw duñ ko dem ndax maa ngi koy lebal yàlla eh, te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daara ji njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuñu ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma ne ba maa ngi ci rek yàlla laay lebal lebalu ma samba lebalu ma demb yàlla laay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma agsi ak lenn ci taalibe Sëñ Tuubaa taalibe ma samba participer ci du ma demb yëpp taalibe Sëñ daara ji boo ñëwee ay tijaan ngi fi te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen i doom fii ci daara ji xam nañ ni sama xol bi sëñ Tuubaa doo nga ci dee nga xam xam nañ ni sama xol waaye nag teewul xam nañu lislaam laay jàngale te lislaam rek lañ bëgg lislaam rek lañ bëgg képp kuy yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ Tuubaa nag mooy sama waasite sama digg ak sama borom sëñ tubaa moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu kon nag noonu rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen ñaanal di nuyu sëriñ ku ñuy wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxee defe naa pendant vingt ans et quelque wala lu ko ëpp ñu bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu mu ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni lu mel daal di jëndi yéere yi rafet ci Côte d'Ivoire yónnee ma ko bërki démb encore yónneeti fi ne yónneeti fi ñaari yéere eh, ci mel noonu loolu yàlla ko yàlla nangu def ko ci téere jëfam téere jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw man bu ma solee per perkaal sax baax ma muskile fii ma muskile fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu di leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa am gënoonu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp bi ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay bis suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi nihmati rabbika fa addis rik waay bu ma la defalatee tiraanga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu ngi nuyu suñu xarit bële tamit di Serigne Cheikh nekk foofu ci ami eh, suñu xel dem na ci eh, soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom ak soxnaam moom it kenn la ci xarit yi daara Ihya Ulumuddin eh, Serigne Mara Mbacke ñu gën koo ci suñu Cheikh Mbacke ah, nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi nuyu leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bàyyi ma kenn insha allahu rabbi xam nga wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñoom baat bi ni mel rek ak noonu ñu ngeen xam daal ñun ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bokki jullit yi bokki taalibe yi